man maa jënda moto bu nga xam ne jàmme moo ko moom te nag keneen moo ko jënda te man nag si loxo kooku noonu laa ko daal di jëndee waaye sax dina ma doon neex su fekkoon ne man maa demoon si oxinekaay bi ma daal ko jënda foofu noonu te man la neex nag te maa ko bugga moo tax nag ma jënda ko te am naa si benn pépp warugal pour daal di ko jënda lii di nga xam ne nag moo di yëfin naa feexa bu nekk si biir réew mi fii dafa daal di ëppa doole torop jàmme jamono bu mu doon jël bagage yi nit yi nag di ko jaay kenn waxut si woon dara ni ki mel ni mbay njaay ak Sons euh, jàppoon jamono bu jàmme doon jël seen assets yi euh, di ko jaay te nag mu ngi koo jaayee si euh, anam bu ko neexee nit yu nga xam ne nag ñoo nekkoon di wax jamono bi ana ñëwoon jamono boobu noonu te nag su fekkee ne nguur gi ñoo nekk di jaay asset yi a gisuma dara lu nga xam ne moo si bon pour nit a a ko jënda parce que nag su fekkoon ne bagage yooyu noonu waruñ ko woon a jaay kon nag nguur gi duñ ko doon jënda su fekkee ne sax Yacine neexut Jammeh kon nag jàmme lum si mun nam ko fa daal di def te nag fuñ nekk nii sax su fekkee ne a bagage mi nguur gi ñu ngi ko jaay waati si biir marché bi man nag dinaa dem ma jënd ko parce que nag dina ma neex trop pour ma daal di ko jënd te nag mun naa ko jënd te nag nit yi wax ne nag téeméeri junne laa jëndee moto bi dinaa leen wax ne nag jëndee naa moto boobu noonu lu lu ëpp loolu juróom benni yoon te nag dugal naa bu gën ko sa sax pour defar moto bubu nono te nak comme ko num ko ko waxee mo moto bubu nono pour daldi ko dawal dam ko jënd rek pour daldi begal suma xol parce que nak pour gis pour bagage nit bu nga xamne nak na la te munulo ci dara lolu nak dara dahut ko te nak lu ci gina daw yaram nak tay mu ngi ni ñetti at depuis nak ya kha li di nga xamne modi suma kër bi mu daldi ko danel te nag luwa doxut si mbir mi nit yu nga xamne ne nag yaakaaroon toxal am luwaa si miir bi ñoom nag daaluñ dima faale te nag si kër boobu noonu ñàkk naa si juróom bi juróom ñaari millions yi dalasi